fii nag tey Grand Médine seet si ki nga xam ne nii rek moom mooy caatu Puyol bi eh, mais Cheikh Omar seet si ko ci bërëbu liggéeyukaayam ñu gis tamit sànq li nga xam ne nii moom la def fekk fi patron fekk fi tamit ki nga xam ne nii moom mooy entraîneur am ñu jublu ci waxtaan wi caatu Puyol ñoo ngi lay nuyu. auzubillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim ñoo ngi lay fay bu baax yaay booy di leen dolli ziar bu baax di leen ñaanal tamit jaamu ju bari di rafetlu tamit seen teewaay bu baax a baax a baax. waaw di kontaan bu baax a baax a baax si teewaay bi waaw di leen ñaan tam jàmm rek. amiin amiin amiin di leen ñaanal jàmm jàmm bi yàlla nañu ko yàlla nañu ko bokk waaye ñu ñëw léegi nag fekk sa place su liggéeyukaay muy menuisier aluminium moom lañ koy wax. Mhm. fan nga toll ci ci ci métier moom ba tax. waaw maa ngi siy tarbiru rek maa ngi siy jàngat bu baax a baax nekk ak tamit sama papa tamit waaw di si tarbiru tam bu baax muy jóob waaw di si tarbiru tam bu baax a baax a baax mu nangul ma tamit lu bëri. côté boobu ma si fayam mu nangul ma lu bari sax billahi wallahi wa taala dafa ma nangul lu bari ma dem man damay toog man kese sax ma xam ne man kii ma nekkal ni nangul na ma lu bari billahi wallahi wa taala li si des ma dama koy bàyyi yàlla rek yàlla na yàlla wéral ay cëram guddal fanam bu mu fekkee lépp moom ak jëmm ji toog nii mi sama entraîneur mi itam lépp si man mm-hmm. xol mi féex ak mbégte bu rëy sànq dafa taxaw nee ma ceer ana temps Fatim woowagu la ma ne ko déedéet wante presque ni une jot na maa ngi ñëw waajal na dem kër ga waajal añi ji si laa demee ba kër ga rek sama yaay tam woo ma kinaa nee foo nekk ma ne ko maa ngi nii kër ga nii mi ne boo munee dem atelier ni nga dem fa léegi-léegi ma ne ko waaw du yàgg dara billaahi lu leer lu leer sax <laughs> lu leer barki borom Touba. Thiatou bu ma duggee si làmb yàggut mun naa ne 2020 bi la. 2020 waaw. mais waaw si mbapat waaw. mun naa ne mbapat sax bi mu siy dugg 2011 la. waaw. laa dugg si mbapat yi di kër kër nanka nanka boobu may bëre milima seen drapeau drapeau affaire affaire. mun naa ne defet boobu daal moom ma gën a métti ndax boobu noonu jooy naa si waaw yaa ma gën a xam anu ñu ñaan nag yàlla na doon daal si njiglaay incha allah rabbi billaahi di keroog bi ñu demee keroog ci làmb ji. leer. Euh, ñun lu leer bi dara desul lu dul parce que yéen yéen a woon. waaw ñoo bëri spécial bi lu leer ka moo si tegu woon waaw. Euh, magum ci laa jóg nag daal di jël nag sama sama sama micro ñëw toog nag ci taatu saako yi. dëgg it xam euh, lu leer billaahi <laughs> kii munuma jooy jooy yu métti sax yu métti sax. billaahi <laughs> métti na ma moom. ndax boobu noonu moo mel ni sama premier combat arène man. ndax lu ma génne woon fii macha allah. waaw wante daal barki borom Touba wante daal lépp daal yàlla na doon si njiglaay rek. billaahi incha rabbi bu soobee yàlla. le 12. ah le 12 euh, mhm. euh, euh, waaw moom ay drapeaux waaw ay si moom presque boo xoolee lépp ndax lu ma bëroon tournoi moo ëpp. wax xam naa ne moom su ma doon bëri lépp individuel individuel drapeaux yi moom macha allah waaw. wante maa ngi koy sant ndax boo xoolee lépp lépp mën na fukki drapeaux waaw. sa raar ma bëre spécial ay tournoi rek laa doon bëre. Mhm. du leer. Mhm. Euh, nga mhm. euh, nga bëre ak kan. maa ngi bëre ak bi demee. keroog ñëpp teg nañ ci seen bët. ñëw naa ànd ak sama papa ma def tekki suñu borom meema ndam si quoi ma sante ko yàlla bu baax muy mhm. sama lépp sax fu dëgg yàlla muy sama lépp moom tamit waaw moo tax dama koy bàyyi ak yàlla suñu borom bu mu fekkee lépp si man man nee naa ko damaa jël lépp jox la foo joxoñ rek ma dagg waaw maa ngi nekk nag sama rukk nag di liggéey bu baax a baax a baax si kàttanum yàlla da ngay am da ngay mhm. euh, am kiir laay. Mhm. bu ñu bu ñu bu ñu déggee sax toujours

mais keroog premier la foofu noonu yow lan waral bu ma yàlla may victoire ma tur xéwal jooy wante foofu noonu du woon aar sax tur xéwal wante jour boobu noonu mbooloo boobu toppoon ma ma waraloon man ma gëstu xool na rek sama rongo ñi génn yàlla xam na loolu maa ngi ñoom ñëpp aw ma seen fay nag. moom mun naa ne du parcelle rek Grand Yoff Arafat Tivaouane Peulh Kër Massar Kër Mbaye Fall ñëpp a ñëwoon. billahi wallahi wa taala du ma nee Arafat gis ak Grand Yoff gii de wante mun naa ne Tivaouane Peulh Kër Mbaye Fall Kër Massar ñëpp ñëwoon. billahi wallahi bi waa bi nag waa Grand Médine nag boo xoolee mafia ba Wuteng ba Mbaar ba bopp coor fépp. li la topp ci ay scooter. gis ba pare tamit ak sareet yi la topp. dëgg moom laa la wax moom boobay alij alij bi mafia boobu mooy alij alij <laughs> bi. waaw ndax ki si bokkul rek mbaari bi tamit dalay dal si kàttanum yàlla yërmandem ñoom tam aw seen fay. Mm. billaa wallaa su ma limee rek damay juum mafia alij alij bi. Mm. bir na borom Touba aw ma seen fay bisi nag waa Malaguti yi dama faa dem am na ñoo xamante ne dugguwuñu ñoo ngi woon si biir stade ñoo ngi woon si biti toog barki leeru Alxuraan billaay wallaay wa taalaay am na ñoo xam ne ñoo ngi woon si biir stade bi sax dañ jël benn numéro numéro booyee naa leen kii heure bu amatee combat ngeen wax ñu ko kon loolu dama koy sante yàlla te xam ne suñu borom moo ma jagleel loolu kon duma ko mos a caaxaanee damay ñaan yàlla nag yàlla na yàlla gën a xeeb doole bu baax a baax te lu si kanam nag rawli bët al yàlla may gudd fan ak wér ak cër yi wér. ñu ñu ñu ñu foofu sama yaram daaw na. Mm-hmm. ndax xam naa ne après ñoom fu ñu demee ba taxaw. ñoom sax ñoomee gën a am man combat amu ma son pression yàlla xam na loola. wan moom tamit waxoon na ma benn wax nee ma caat jour bi ñuy jógee géej gi fajar gi waxoon na ma benn wax caat sóoraaleel sa tànk yi. loo tax combat bi chaque jour dama koy seetaan naat ndax boo xoolee bu ñu jëlee sama tànk instant mënatul téye boppam moom miy toog nii yàlla xam na loolu bi ñuy ñibbi si nii la ma ko waxee dafa ma jékki-jékki xool rek nee ma ma nee ko waa mi ne ma soraaleel sa tànk yi te noonu la demee dañ ne pré ma gis nga noonu la demee damaa daw di ko attaqué mu jékki-jékki dugg sama tànk yàlla xam na loolu après ma mu nee ba toog sax man dama kii bu nekk ab sëriñ mën na ko wàlluw yàlla xam na loolu. wallaahi <laughs> <laughs>

te musul nekk lu nice mbër amna lo xamne bo fa dem ba tollu fa waro sa def nako su du nono ndax da ngay don da ngay xamé man ta fa damay dox geej gi sa waxuma la sa geej damay dox nit romb ni neema ci damay tit sa te duma la xam billahi wallahi wa ta'ala lo do sama nat yi ni yalla jox ma ni lu ñuy def damay conseil suba ngon te tay man ak ñom ñoy nekk suba ngon am lu yo xamantene neeku sax sama bop bi ñom laaj lan samedi ba samedi lay ñew si koñ bi suma commencé entraînement ndax mënuma di boole yeewu fajar 5 heures demi di naan maa ngi ñëw toog ak ñoom ba ay 11 heures di dem tëddi. Euh, xam nga xam nga muy muy muy mhm, mhm. bi mu mujjee bëre samedi boobu noonu la. macha tëj moom mhm. ah, billaahi. bërëb sàngam. dëgg dëgg quelques jours muy deux fois. Mhm. ci diggante bi làmb euh, mhm. allah bilaa walaay bilaahi bilaa walaay an tamit jumte la wante foofu mu nekk tam yàlla na ko fa yàlla taxaw bu baax ak bépp doomu aadama nag ak sama mbokk Baay Faal yooyu nekk foofu di leen ñaanal ñoom tamit yàlla leen yàlla taxaw bu baax génne leen tamit foofu ñu ne bilaahi tàng na lool metti na nag tàng na metti na yal na fa yàlla génnee incha allah. Mhm. Mhm. Euh, foofu noonu dama doon xoole sama ñoom maam rek noo ñoom maam laa doon seeti rek <laughs> waaw <laughs> waaw non boo dama doon xoolee ñoom maam rek mm. xool ñoom maam nemmee ko leen bu baax wa ndax nit mo amul lenn dul mo xam di leen nuyu tam ñom ñep wa kadior nuyu wa Casamance bu baax baax baax ñom ñep ñom neena na gaale ñoom maam yaayoo waa kër gi yep suma limé rek damay joom billahi billaahi sant yàlla rek ma ngi ñaan yalla nak yalla mu mos dund succès yàlla bu ma ko mos dund ci kaw suuf billahi wallahi Cheikh Omar mbër billaahi wante man moom ko lu leer waaw dafa dafa mhm, mhm, dafa moom yow mhm. euh, ci jot euh, na da loolu yàlla bu ma dal si kàttanum yàlla yërmandem loolu yalla bima musa dal ci katanum yalla man kay ñaan yalla nak sa su ne nak loolu lay ñaan yalla billahi wallahi ndax man xejuma ci gatché ndax damay bañ ba dé billahi wallahi wa taala waaw ndax bobu nonu man ak kan la donon sax tafatin 2 ikri jàmm ga di si kaa mbaaw moom tam maa ngi koy bu baax ba bis ba si kàttanum yàlla incha allah léegi léegi sax si kàttanum yàlla kay dina neex dina yëngu moom incha allah Fallou Ndiaye si mujj waaw moo ko tëggoon mhm. waaw waaw deuxième bi deuxième bi première bi Mbaye Yékini moo ko tëggoon waaw moo ko tëggoon waaw di ko nuyu moom tam bu baax bu baax baax sax waaw moo ko tëggoon waaw. foofu moom du mu fa sori foofu du mu fa sori waaw waaw dëgg lu leer <laughs> waaw xëy na <laughs> di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla tam suñu borom feebar bi mu dugal fi yàlla na ko yàlla saafara bi ñu nekk suñu activité ñu ñëpp waaw Mm-hmm. waaw dëgg it mm-hmm. moom loo tax ma la jëmm ji toog barki borom Touba aw ma fayam barki leeru Alxuraan barki Seydina Mohamed aw ma fayam kii mënu ma ko mënu ma dund ba defara ko lépp aw ma fayam barki leeru Alxuraan aw ma fayam billaahi wallaahi wa taala aw ma fayam bu fekkee am naa fayam yàlla yàlla na ma sa fa jël addiya barki leeru Alxuraan aw ma fayam taafaam damay liggéey yeneen saa ma toog damay toog ay une semaine yoo xam ne su ma jógee fajar damay toog di ko récupérer billaay wallaay su ma ñëwee duma duma du wax dara moom ak Saliou dama ni bàyyi yàlla yàlla mu am seen fay yàlla neen yàlla fay buñ fekkee lépp si ceer barki leeru alxuraan billaahi wallahi wa taala sama papa mi toog aw ma fayam yàlla mu am fayam yàlla na ko yàlla fay xolam billaahi wallahi wa taala damay jógee entraînement ñëw mu ne ma ceer ndax ndékki nga ma ne ko waaw an duma gëm faak mu jox ma lu ma ndékkee ba pare moom ak saaliw billaahi wallaahi wa ta'ala bi si gaa yëpp nag di len nuyu tam ñom ñep boy yep di nuyu tam wa Grand Médine bi yep waaw di ñaan daal yàlla na jàmm yàgg si mi te nak ñep am hmm. waaw waaw ma ngi tagoto dal di nuyu wa Grand Médine bu baax baax baax baax di nuyu wa Grand Médine bu baax di nuyu tam parce bi yep 1 ba 26 di nuyu tam sama wa écrit di nuyu tam sama père père As sama ménageur maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaan tam gudd fan ak wér moom tam ba lu muy séntu si man yàlla bu yaa tas yaakaar yàlla nañ yàlla boole yàlla nañu yàlla jubóole si kàttanam yàlla yërmande di nuyu ñëpp di leen siyaar yéen tam bu baax waaw di leen ñaanal gudd fan ak wér ak jaamu ju bari kontaan continuer rek mer maîtriser continuer mer maîtriser waaw. <laughs> <laughs> maa Não, si. Não, boobu. non boobu. moo nekk de Não nekk Não bi. non nga xamante ne. não. kooku dina. não. kooku dina ñëw. kooku dina ñëw. rot cek cek di gi jërë gi ce gi jërë gi ce ce ce gi jërë gi jëng jëng jëng ce gi jërë gi jëng jëng jëng ce ce jërë gi jëng